baatin ci kan nga gis baatin daal li euh, ma nguur bu dee baatin ngay wax. Mhm. en tout cas bari na rawaan yoo xam ne nee nañ Sonko mooy remplacer Macky. xam mhm. la <laughs> bari na daal rawaan laa la wax de ku ma la man rawaan yi ay rawaan waaw les invisibles. ñu ne la Sonko moom Sonko lañ faral xaw dañ ko yërëm koo d'accord rawaan invisible nee nañu Sonko mooy remplaçant bu ñu nee la mooy ki nga xam ne da nga koy provoquer ba mu visible te fekk du invisible la nga provoquer ko mu visible wala yu dem donc loolu mu ngi suñu kanam. rawaan waaw rawaan ñoom pour ñoom pour ñoom Sonko moo koy remplacer. ñoom yow yow am hmm. néewuñu moo koy remplacer doon président de la république. ah d'accord. man waxuñu loolu ñoom préciser wuñu loolu rek lañ wax. Hmm. léegi nag yow. en tant qu'être humain yaay def sa analyse xool li rawaan bi wax ban remplacement lay doon remplacer ko ci politique bi walla ci tur walla ci lan